Euh, salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki àdduna salaamaaleykum mbokki yeewoo ci dëkk bu sell bi di Touba ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di leen baalu àq di ko sàkku ci yéen waaye itam di ñaanal xalif général des mu yàgg fi loolu te wér noonu lañ koy ñaanalee euh, xalif général des Baye Fall Serigne Cheikh Jëmbu Fall mu yàgg fi loolu te wér euh, bu taxawaay tey ku ne xam na ne taxawaay la boo xamante ni taxawaay bu ànd ak mbégte taxawaay bu ànd ak kontaante lépp rek ngir waajale ko bis bu màgg bis bu sell di bisu 18 safar di bisu Xaadimu Rasul ba di nga xamante xamante ni ci la tukkee woon tukkeem bu sori boobee euh, tukki bi nga lu nekk dañ na ko fa ci ay coonam euh, ci ay métital tamit euh, tukki boobee mën nañ ne tey moo waral tey jullit ñëpp am jàmm murit yëpp am jàmm taalibe yëpp am jàmm rawatina diine lislaam ndax diine ji rek moo ko ñoroon diine ji rek mooy li nga xamante ni moo taxoon mu demoon ci tukkeem bu sori booba ba tax tey ji mu am lii mu am ba tax tey nag kenn ku nekk xam na ne ñu ngi ci waajtaayu màggal Touba bu ñu nee waajtaayu màggal Touba dina bokk ci gan yi naka la ñun war a dalalee gan yi ku ne xam na jamono ji màggal gi mi ngi tombé ak jamonoy Covid 19 mbas mi di ko coronavirus lëmbe àdduna bi rey ay doomu aadama yu bëree bëree bëri ñun nag ñu ñaan suñu borom yàlla nañu boole ci ñi nga xam ne dégg rek lañ ciy am waaye bëgguñoo gis sax koo xam ne man nañ ne doomu jàngoro bi dal na la ginnaaw loolu yëpp rek ñu nekk si waajtaayu màggal Touba bi ñu bëgg waxtaan ak askan bi laaj leen seen gis-gis naka la ñuy waajalee màggal gi naka la ñuy accueillir gan yi waaye tamit naka la ñuy fexe ba gën a maytandiku doomu jàngoro bi di Covid 19 ak naka la ñu koy waajalee Diouf da nga may daal di topp ma ànd ak askan bi dikk leen sama micro laaj leen naka la ñuy waajalee màggal ak Touba gi euh, sëñ bi euh, tur bi ak sant bi. sa sang Sarr lañ koy wax ndongali. Euh, waaw sëñ bi ñu gis ne li des suñu diggante ak màggal Touba di ay fan yu néew ñu tombee nag ak jamono bii di Covid 19 yan jumtukaay nga jàpp ne war nañ koo mën a jël ngir moytandiku doomu jàngoro bii di Covid 19. waaw ñuy dañuy dañuy dañuy jégaluwaat rek sant yàlla bu baax ci dogal bi suñu borom dogal ne war nañ koo mën a dund ci lu mënta ñàkk. ginnaaw loolu nag dañ koy dañ koy sant ndax lu mu lu gën la ci ñun bu gënul woon ci ñun duñu ko def ndax suñu borom du du gaañ ab jaamam ci lu mu yëg ak ci lu mu yëgul nag ndax ñun xamuñu lu doon ndigal yaakaaruñ lu kiy joxe ndigal te ndigal li mooy ñu fagaru ni ñu fagaru mooy ñuy takk masque di di di suivre distanciation yi di di bàyyi xel ci lépp loo xamante ne bi day tax rek euh, ñu ñu lorante mais ñu euh, hmm. loolu waaw loolu moom jafe na jafewul ndax li jafe mooy nooy def ba nooy amee xelu dalal gan gi waaye bu boo utili boo jëfee sa xel rek jaar fi ni fi la sëñ bi teg rek lépp a yomb ci yow muy euh, distanciation yi wax nañ ko. masque yi tamit wax nañ ko sëñ bi joxe na ndigal ne képp kuy ñëw na nga indaale say masque yow mi nekk ci dëkk bi tamit waajal ci si ay masque kon loolu nga xam ne moom mooy moom mooy tax feebar bi wàññeeku ak feebar bi mën a bañ a law ci suñ biir duñ ko jëfee rek li ci des lépp amul solo ndax xéwal gi moom suñu borom def na ko ba pare alhamdulilah. waaw sama mbokk taalibe daal maa leen wax ñu yaatal xel yi yaatal xol yi. dalal gañ ñi ca nam gën a selle ci ne ko sëñ bi bëggee bu ko defee ñu ñaan yàlla tamit yàlla nanguñu suñu ak màggal ci barke borom màggal gi ci barke alxuraanul karim. yaay bi ak sant waaw euh, ak màggal waaw yan jumtuwaay bi di ko waaw muy set gi set gi daal lañ war a gën a yokk. waaw di raxasu ba set te sàmmoog digle yi tey takk masque yi fonk takk ko takk lu ko tey takk masque yi loolu daal moom bu ñu ko defee parce que kenn ku nekk war ngaa mën aar sa bopp te comme masque yi moo la ci gën a moo la ci mën a génnee moom lañu wax kon danga ngaa war a aar sa bopp waaw di takk masque sàmmoonteeg digle yi waaw gan ñi xanaa yaatal leen rek gën a kii ñu am espace espace bi gën a yaatu daal ñuy bañ di dajaloo ñu leen di defal espace ku ne mu gën a yaatu daal kër yi gën a yaatu bu dee nga yéeg ci kaw ak yooyu sax waa nga gën a yaatal daal ak di teg say gel ak yooyu daal pour gan ñi di ci gën a jëfandiku. lan ngay soññ say mbokk soxna. waaw loolu di soññ nañ gën a góor góorlu ci cet gi waaw ak masque yi di jox gan ñi masque yi bu ñu téyee masque yi ci kër gi ñu koy jox gan yeeg yooyu daal di gën a góor góorlu ci cet geeg yooyu. sëñ bi tur bi ak sant bi. ah Massayar Ndaw Euh, euh, waaw comme ndégale ne ko kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk ñi nga xam ne ñoo ñooy kilifa ak réew mi maanaam ñu féete yi nga xam ne ñoo jiite réew mi daal kilifa yooyu ak euh, ki nga xam ne ni moom lañ yaakaar muri yëpp xam ne mooy mooy. jiite mboole mur yi comme niñ ko waxee rek ndax maanaam boo xoolee seen kàddu yëpp benn la. waaw comme gën a góorgóor rek comme noonu ko kilifa yi waxee rek gën a farlu ci raxasu yi ak protège yi nga xam ne wax nañ dég dégle nañ ko ñu defe ko comme ni nga xam ne noonu lañ ko santaane waaw bu nu ko defee rek suñu borom mën nañu doole musal daal waaw kon ñu gën a góorgóorlu rek respecté ndénkaan yi nga xam ne moom la ñu kilifa joxe rek. Ah, di ngeen ko mbokk yi ah, comme liñ leen ko waxee woon uh, sànq rek ah, askan bi tàllal nañ leen suñu micro dégg ngeen ni ñu waxee rawatina jamono jàngoro bii di Covid 19 nee nañ màggal bi dañoo bëgg a màggal si jàmm gan yi ñibbiwaat si jàmm waaye lépp rek ngir boole kook jël seen matuwaay yu am solo lu ci mel ne ay gel hydroalcoolique yi ak lu ci mel ne ay masque ak jumtuwaay yu am solo ay savon yi ay ñu bàyyi dara lépp rek ngir waajalee ko màggal gi waaye lépp rek ngir bëgg gan yi ñëw màggal si jàmm daal di waa si jàmm kon mu mel ni askan bi yeewoo ci dëkk bu sell bi di Touba ñi ngi gën a wàcc màggal Touba waaye ñu ngi koy gën a wàcc ak set sell lu jëm wàllu masque ak yu ni mel comme ni ñu ko waxee woon sànq mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal sant di leen gërëm di leen jox dig dajee mbokk yi jërë ngeen